mbokk alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal santar suñu boroom subhanahu wa taala mi nga xam ni moo ñu dajale ci néegam bu tedd bi ñu fas yéene jël ab bind ci ab téeréem doonte ni ne loolu mi ngi tombeek natt boo xam ni suñu borom yàlla boole na ko mboolem waa suuf ba tax ci suñum réew ñuy tere kenn kuy génneti gannaaw neuf heures loolu nag tax na ba ñu bari daan jóge ci gox yi sori dootuñu mën a fekke seeti tafsir bi allahuma lu dul mi ngi leen di fàttali rek ne su dee da nga dem ci xam islam point com da nga fa fekk dars yi su dee ne it mën nga joxe sa numéro ci 77 814 42 20 bu ñu la boolee ci groupe bu jàkka ji dars yi day ñëw sa téléphone directement loolu kon la ñuy wax ca wàllu googee di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy borom suuf nattuwaa suuf yàlla na yàlla teggi ko ci njëggalam ak yërmandeem te wuutalal ñu la nga xam ne moo ko gën kon ñi ngi war a jël tey aaya ñaar fukk ci suuratu luqmaan fi suñu borom di waxee ne alam taraw anna allaha saxara lakum ma fi samawat incha allah bu dee Cheikh Ousmane pare na barakallahu fiikum auzu billahi min asheytaani irrajim suñu boroom mu ne alam taraw ma ndax nit ñi xanaa bokk leen gis
أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ne yàlla tàggatal na leen lépp lu nekk ci asamaan yi ak lu nekk ci suuf wa asbaxa alaykum ni'ama noon it la mottalee mooy matal ci yéen sotti ci yéen la nga xam ne mooy ay xéewalam zahiratan wa batina mu doon lu feeñ ak loo xam ne ni lu nëbbu la wa min annaasi man yujaadilu fi llah doonte ne am na ci nit ñi ñuy dàgg sante ci yàlla bi gayri ilmin wala hudan wala kitaabin munir ci loo xam ne teguñu ko ci xam-xam teguñu ko ci ak njub teguñu ko ci téere boo xam ne bu leer la wa ida qiila lahum ittabi'u ma anzala allah buñ leen waxee kaay leen topp li yàlla wàcce qaalu bal nattabi'u ma wajadna alayhi abaana ñu ne déedéet ñun kay dañuy topp lañ fekkoon suñuy bàyyi awalaw kaana sheytaanu yad'uuhum ila azabi sair ah doonte ne bàyyi sax sheytaane nga leen di woo jëme ci mbugal sair mu nekk ci benn gox ci gox yi sawara yi te mooy liy tàkk mi ngi noonu wa man yuslim wajhahu ila allah koo xam ne daa jébbal kanamam jëme ko ci yàlla wa huwa muhsinun fekk man ka booleeg di rafetal faqad istamsaka bil urwati l wusqa kooku day ngoy na ca la nga xam ne mooy njàpp ga gën a dëgër wa ila llahi aqibatu l umur ca ci yàlla la mujj mbir yépp di dellu mi ngi noonu mbokk suñu boroom subhanahu wa taala dafa bëgg jaam yi jaamu ko jaamu goo xam ni ci seen xel lay jóge jaamu goo xam ni ñoom ñépp dañuy yëg ci ne yàlla dong yeyoo ñu jaamu ko looloo tax mu woo suñuy xel na ma nax nit ñi xanaa gisuñu lu mu yàlla subhanahu wa taala may ay bët ngay xool yow silmaxa bi it ngay xoole sa bëti xol da ngay yëg ne yàlla ñu tàggatal li nekk ci kaw asamaan yi jant baa ngi nii yàlla tàggat ko ngir ñun mu ñuy yónni la nga xam ne aw tàngoor bu dul woon ak looloo suuf nekk bloc de glace ñun ñëpp ñu dee mu ñuy yónni lumière énergie bi mu ñuy yónni bokk na lu borom xam-xam yi di wax benn journée bu jant bi leeral suñ ko mënoon a capter doy na àdduna yépp pendant un an ñu alimenté wu ci lépp lu ñu soxla ci énergie gis ngeen lampe solaire yi am ak dëkk yu bari solaire la ñuy utiliser weer baa ngi nii suñu borom yàlla tàggat ko mu nekk équilibre suuf suñu borom yàlla tàggat ko mu ñuy xamal date yi nga xam ne moom la ñuy jàpp mi ngi noonu ñu ngi fàttali que tey mooy sént bu njëkk ñaar fukki lay fan ak juróom-ñeent ci jumaa daal uula bu dee yàlla dogal nu mu feeñ ñu dugg ci la nga xam ne mooy jumaa daal saaniya loolu yàlla nga ko tàggat ngir loolu biddiw yaa ngi nii yàlla tàggat ko mu ñuy teete ci lëndëmi géej ak lëndëmi jéeri ngi noonu ngelaw yaa ngi nii yàlla tàggat leen ñu yëkkati xiin yi yëkkati niir yi di indi taw bi boo demee ci kaw suuf suñu borom tàggatal nañu la fi nekk ci ay bàyyuma ñu moom leen da ngay dem dëkk yu mel ni Inde gis koo xam ne géttu ñay lay am géttu ñay jiital leen garab gu nekk mu yeew fa benn doomu aadama yàlla tàggatal na ko lépp zoo yaa ngi nii ñu tëj fa gaynde yaag segg yaag lu nekk garab yaa ngi nii yàlla tàggat ko biir suuf yàlla tàggatal nañu xoolal pétrole bi nga xam ne tey bu amul woon àdduna taxaw xoolal gaz su amul woon àdduna taxaw ak yeneen yoo xamee ne nii bu ñu ko doon lim tey ba ila yawmi diin duñ ko jeexal borom bi nag mën a asbaxa ay jotal na doomu aadama yi dañoo nuur ci biir xéewali yàlla te mooy foo tourné rek gis xéewalam foo tourné gis xéewalam ci li nga xam ne feeñ na ak li nga xam ne dafa nëbbu tey yow doomu aadama xoolal sa yaram bi nan la ko yàlla composé des centaines de milliards de de de cellules ba dañ naan la sa cerveau bi rek am na vingt cinq milliards de connexion connexion ñi xam réseau Sonatel yeeg yooyu ñu ngi noonu vingt cinq milliards de connexion sa serveur bi rek am na ko loolu di yàlla def xéewal yu kenn mënta lim yàlla na yàlla yërëm suñu mbokk ba El Hadji Fadior Gueye heure bu may tafsir lii sama xel dem ci moom dafa daan wax ne doomu aadama buñ na ko woon kaa ñu yóbbu la ci benn île île ba nag loo waxul doo ko fa fekk lu la neex nag waxal loo wax da nga fa fekk dana wax fu mu war a tëdd lu mu war a lekk lu mu war a naan lu mu war a sol waaye nee na buy dem di dee ñu ne ko lu tax mu ne day wax lépp fàtte wax oxygène bi muy noyyi am déet bokk ndax doomu aadama dana tukki ba xalaat yóbbaale oxygène déedéet waaye tey da ngay xool bi nga duggee ci jàkka ji ba baa ngay génn ci jàkka ji ñaata litre d'oxygène la la yàlla wërsëgal nga dugal ko sa poumon yi mu alimenté ko segg sa deret bi génnaat ñaata kon kenn mënta lim xéewal yàlla jalla wa ala borom boobu nag nga xam ni moo def loolu teewul nit ñaa ngi dàggasante ci moom am na ñoo xam ne nee nañ yàlla amut am na ñoo xam ne nee nañ yàlla am na moroom am na ñoo xam ne weddi nañ ay melokaanam am na ñoo xam ne nii weddi nañ ak téréem ila axiri ca loolee teguñu ko ci xam-xam boo xamee ne dañ koo xam du njub gu ab yonent ndi xamal leen du ab téere boo xam ne dañ koy sukkandikoo waaye wax rek ca mbokk loolu ñun ba ko alxuraan di wax ba tey sunu génération ko gën a dund ñun ñi yàlla tombeek ñu tombe les réseaux sociaux wallahi nit ñi dañuy xëy di wax rek des centaines de milliers de wax yu nit ñi di wax jëmale ci yàlla jëmale ci diine yàlla ji ci loo xam ne teguñu ko lu dul seen bànneexu bakkan seen xalaat kese wallahi du ilmu du hudan du kitab wax rek mi ngi noonu borom boobu nag ne suñu leen woowee ne leen kaay leen ewaay kaay leen ñu toppi li yàlla wàccee ñun ay jaami yàlla lañu yàlla nee na moo tàggat asamaani ak suuf yàlla nee na moo ñu moom moom lépp wàcc na aw yoon nee na yoon wii ci la ñuy texee kaay la ñu topp ko mbokk la xel nangu woon moo ñu topp yoonu yàlla jant bi de yàlla ko tëral yoon bi muy jaar yoon boobee teggiwu ko ba tey te loolu mooy nekk suñu njëriñ weer baa ngi ñu naka noonu yow it doomu aadama fii la yàlla tëralal adduna ngi ji ngay dund ca ngay mën a amee jàmm àllaaxirat ca ngay mën a jàmm waaye li ëpp ci nit ñi soo leen ko waxee ñu ne déedéet ñun dañoo fekkoon suñuy bàyyi ci aw yoon naka la ñuy bàyyee suñuy bàyyi suñu maam yi lañ toppoon di ko gëm ñu koy bàyyi di toppi leneen lii moo yàq diine quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ñu jëm sawara yal na yàlla musal ñu ci loolu te doonte ne ne loolu nangu nañ ko ci mbiri ad ci mbiri diine kenn ci ñoom nanguwu ko ci mbiri àdduna te ji li ëpp ci ñoom ba ñuy judd ñu ngi fekkoon seen bàyyi ci ay néegu ñax seen bàyyi ay mbaam lañ daan war ak i ak i ak i gileem tey ñoom ñi ngi yëkkati seen i immeuble ñi ngi taxawal seen i kat-kat waaye diine ji ñu fekkoon seen bàyyi moom dara du tax ñu soppee ko lu tax yow doy la woo néegu ñax ya sa bàyyi doon lekk ak sakket yam doon lekk ak lalu tagar yam doon dundee ba nga demee ba gis ne lii kat moo am naa lu gën la sama bàyyi nekkoon nga bàyyi ko diine yàlla ji soo gisee lu gën a jub la sa bàyyi nekkoon doo toppi li gën a jub cay ñaanal sa bàyyi bu dee bàyyi yeyoo nañu ñaanal ko borom boobu subhanahu wa taala nee na même bu doon cheytaane mi ngi leen di woo jëmee sair ca mbokk it xam leen ni yàlla yónni ay yonentam wàcce ay téeréem cheytaane moom mi ngi fi dund ak ñun ba ila yawmi diin mi ngi woo doomu aadama yi fan la leen jëmi ca sair ban yoon moo gën a gaaw yu jaadiluna fi allah fexe bañ bokkaale mbokk njaaloo taxutu dem sawara lekk riba taxutu dem sawara lii lépp doomu aadama mën na ko deyaale sax am yeneen yu tax yàlla jéggal ko ba demul sawara waaye bokkaale moom bis boo ko deeyaalee foog nga dem sawara looloo tax seytaane foofu lay jaar ak ñoom ni ngi noonu yaddu uumi ila azabi sair borom boobu nag di woo borom xel yi nga xam ne ñi ngi xalaat ñoom ba gis ni yàlla dong yee ñu jaamu ko yàlla dong mooy ki moom ñu jël seen kanam jébbal ko ñeel yàlla yuslim wajhahu ila allah du ñu yaakaar ku dul yàlla du ñu sukkandiku ci ku dul yàlla yëgguñu kenn koo xam ne dana am lor ak njëriñ ku dul yàlla ndax fa la ñuy yem déedéet wa huwa muhsin waaye nag mu rafetalit jaamu yàlla ga ko yàlla sant bokk lii borom bi nee na ki ko def mooy nga ci jàpp goo xam ne du dagg ba faw ca it mbokk julit lii la war a bàyyi xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na lu ñu daan jàngal nee na kenn ci yéen buy tëdd la muy mujj a wax na ca bokk mi ngi noonu ay yàlla maa ngi jébbal sama bakkan bi jëme ci yow maa ngi jubal sama kanam ci yow mi ngi noonu maa ngi laq sama gannaaw ci yow maa ngi xemmem jëm ci yow maa ngi ragal jëm ci yow amul fenn fu nit mën a laq amul fenn fu nit mën a rawe xanaa lu dul ko daw ci ñëw jëm ci yow e yàlla man day gëm naa téere bi nga wàcce e yàlla man day gëm naa yonent bi nga yónni loolee mbokk yonent bi alayhi salaam nee na ku ko mujj a wax nelaw yooyu boo ca dee àjjana nga jëm mi ngi noonu boo ca dee àjjana nga jëm allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk walja'tu zahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka ila ilayk allahumma inni amantu bi kitabika allazi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta la ilaha illa ant mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa ta'ala ni mbir yépp ci yàlla lay teer mbokk mboole mbiri àdduna ñiy dund ak ñiy dee ñi am wërsëg ñi gàtt wërsëg képp ku ñuy xeccali ci yàlla rek la allaaxira gën jëm lépp ci yàlla kese la amul yonent bu fa am kaddu amul malaaka bu fa am kaddu ku fa am teraanga ci yàlla la jóge kuñ fa toroxal ci yàlla la jóge wa ilallahi aqibatul umur mi ngi noonu Cheikh Ousmane
ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطر وَأَضْطَرُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير barakallahu fikum suñu boroom subhanahu wa ta'ala mu ni wa man kafara képp koo xam ne daa weddi fala yaxzunka kufru bum la tiis mukk weddi gam weddi ilayna marji'uhum ci ñun yàlla lañuy dellu ah mooy seen delluwaay fa nunabbi'uhum bima amilu ñu xabaare leen ci lépp luñ doon def inna allaha alimun bi zaati sudur yàlla day mooy kiy xam la nekk ci biir dënn ya numatti numatti'uhum qalila dañ leen bànneexal tuuti nag summa nattarruhum ila azabin galiz gannaaw ba ñu xiirtal leen forcé leen jëme leen ci mbugal mu dëgër mooy mu tar wala in saaltuhum man xalaqa alsamawati wal ard boo leen laajoon ma yéen ana ko bind asamaan yeeg suuf la yaqulunna allah ñu ne ah loolu day yàlla ko bind qul alhamdulillah neel mboole mu cant ñeel ne yàlla bal aktaruhum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom day xamuñu lillahi ma fi samawati wal ard ñeel na yàlla lépp lu nekk ci kaw asamaan yi ak suuf inna allaha huwa alganiyu alhamid sa borom yàlla mooy ki woomle ki mooy ka nga xam ne mooy yeyoo cant yëpp alhamid mooy ka nga xam ne mooy yoo cant yi ñu koy sant alhamid it mooy kiy sant ay jaamam walaw anna ma fi l ardi min shajaratin aqlaam bu doonte ne dafa nekk li nekk ci kaw suuf yépp ci ay garab daa nekkoon ay qalima walbahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur lii di géeji kaw suuf mu dollee ko dooleel ko juróom ñaari géej yeneen maa nafidat kalimatullah du tax mukk mu jeex kadduy borom bi inna allaha azizun hakim sa borom yàlla mooy ki not lépp ci kattanam hakim mooy ki xereñe lépp teg na ko fa mu war a tege ma xalqukum wala ba'thukum nekkul bind gi ma leen di bind ak dekkal ga ma leen di dekkal di leen génne ci bàmmeel yi illa ka nafsin wahida dafa mel ni rek benn bakkan inna allaha samiun basir sa borom yàlla mooy aji dégg lépp aji gis lépp jalla wa ala mi ngi noonu mbokk da ngay gis ne ab jullit dëgg-dëgg yéeféer yi daañ ko tiisal heure boo déggee ñuy wax ci yàlla yenn wax yi sa xol dana naqari lool ba alxuraan di wàcc day te yéeféer yi rek la woon doonte ne tey jii lu gën a tàngal sa xol sa mbokkum jullit moo koy wax lu gën a tàngal sa xol rek ci sa mbokkum jullit nga koy dégge ñuy wax ci yàlla wax yoo xam ne méngoowul abadan ak ak ak màggaayu yàlla ak nañ ko waroon a sante waaye mu mu ne bu sa xol tàng ñoom ñépp ci man la ñuy dellu wala fi dañ naan sàcc bu dul raw jarul yàq say nelaw ñoom ñépp daan dellu si ñëw ci man ku nekk danaa ko taxawal xabaare ko la nga xam ne doon na ko jëf la nga xam ne doon na ko wax ca sa borom yàlla day néewuma dégg na li yéeféer yi di wax wala ñi sanku ñi di wax waaye la nekk seen dënn ya sax ca waxuñu ko borom bi mu ne xam naa ko question bi ñuy posé waaw suñu borom yàlla yéeféer yi nekk fii mbëru lu ñaaw lu ne ñu wax ko ci diine ji def ko nit yi diine yi ba pare seeni xéewal di yokk loolu lan moo ko waral borom bi mu ne nu matti'uhum qalila dañ leen di bànneexal tuuti rek tuuti te mbokk dunduk àdduna suñu borom mu ne wa matawul xayaati dunya illa qalil ki defoon téeméeri at ci kaw suuf heure bu dajeeg boromam day jàpp ne benn heure la def ci kaw suuf jàng nañ ko biñ jég nekkee suratu Rum mi ngi noonu kon borom bi jàll wa ala ni dañ leen di bànneexal tuuti gannaaw ba nag ñu forcé leen yóbbu leen ci mbugal moo xam ne mbugal mu tar la wala way ndawal julit giseel noonu taxawaayu yéeféer mboolem xiiwal yi nekk ci ñoom musiba la leen di jural day gën a taral seen ba seeni bakkaar gën a taral seeni mbugal borom bi nag di wax bokkaalekat yi yéeféer ya la wala mu doon ñi nekk ci biir diina ji di bokkaale koo ci woowoon na ko waaw diw dama lay laaj rek asamaan kan moo ko bind suuf kan moo ko bind wallahi lañ lay tontu mooy yàlla rek moo ko bind amul kenn koo xam ne dana fonk la mu fonk ak lu mu mën a doon ba yeggale ko ci ne moo bind asamaan yi ak suuf xanaa koo xam ne dafa dof dafa dof complètement doonte ne Sénégal moom bëri na ay dof mi ngi noonu mi ngi noonu ndax doomu aadama bu mënee yegg ba waxumaa naan diw moo bind jant ak weer ak yooyu waaye dem ba mën a yegg ci ne diw moo bind suñu borom subhanallah ci nettali wax ji sax loole moom mbokk mënuma koo tudde kéeféer ak ndof rek laa ko mën a tudde ak ndof rek laa ko mën a tudde mi ngi noonu borom bi nag subhanahu wa taala ni yéeféer yi gën a tar ci yéeféer kuñ ci laaj ku bind asamaan ak suuf ñu ne waaw loolu kay xam nañu yàlla ko bind ñu ne waaw kon kay qul alhamdulillah yàlla moo bind xéewal yépp yàlla bind malaaka mu bind nit mu bind jinni moo moom xéewal yi kon kay sant yàlla moomu dong lañ ko war a jagleel yow julit yonent bi alayhi salaam sunnal ci yow cent soixante cinq fois ci jour bu nekk téeméer ak juróom benn fukk ak juróom nga toog di wax alhamdulillah fajar 33 tisbar 33 takusan timis gay soo ko boolee muy 165 fois da nga taxaw ne alhamdulillah cant yëpp yàlla ko yeew cant yëpp yàlla ko yeew e waay sëñ cam bul génn jàkk ji nag naan jërëjëf sëñ diw jërëjëf yàlla ko yeeyoo cant yàlla ko yeeyoo yàlla na la nangam defal yàlla dong dong lañ wax yàlla defal la waaye waruñu wax mukk keneen ku dul yàlla ndax qul alhamdulillah neel mboole mi sant yépp ñeel na yàlla waaye suñu borom yàlla mu ne nag la ëpp ci ñoom day xamuñu mbokk la ëpp fu ko alquran waxee rek lu bon la ca teg aksranance la yaqiluun la yatafakkaruun la yuminuun donte ne ne yàlla dana ko wax lu jege juróom lu ëpp juróom benn fukk yoon ci téeréem bi fanweeri yaag nangam yépp danaan laa yaalamuun di gën a nekk doomu noonu doomu aadama mbokk mooy jëhl mooy réer ñàkk a jàng yal na yàlla musul ñi ci musiba yi ngay dégg wax yépp ci rajo yeeg télévision yi am na ca 10 pour cent yoo xam ne jàng nañu dañoo saay saay topp seen bànneexu bakkan waaye 90 pour cent yi dañoo xamul dara jànguñu dara looloo tax bokk na déli bi gën a rëy ba bàyyi yoral doomam nga jur doom ba mu toll na yow ca jàngaloo ko diineem da ngeen noonu jàngaloo ko diineem aksaruhum la ya'lamun dañoo xamul dara borom bi nag ne xam leen ne yàlla moo moom li nekk ci kaw asamaan yi ak lum mën a doon ñi ca jiitu mooy malaaka ya yàlla moom li nekk ci kaw suuf ak lum mën a doon ñi ca jiitu mooy yonenti yàlla yi ñoom ñëpp ay jaam lañu sa borom yàlla nag mooy alxani mooy ki woom leki ay asamaan ak suuf buñ dëppoo woon ci mooy ko dara la yàqul ci nguuram asamaan ak suuf buñ dëppoo woon ci jaamu ko dara la yàqul ci nguuram waaye it mooy alxani bi nga xam ne lépp jalla wa ala moo ko moom moo ko yeyoo mooy it alxamid na ma leen ko waxe sànq moom mooy ka ñuy tagg ka ñuy sant ci ay melokaanam di ko sant ci ay jëfam lépp loo xam ne def na ko rek jaam bi da caa war a sant suñu boroom alhamdulillah ala kulli xaal doonte ne it noonu lay sante ay jaamam bépp jaam boo xam ne jaar na fa ko neex yàlla dana la sant mi ngi noonu yàlla dana la sant alhamid borom boobu nag di wone kattanam ñel yéeféer yi nga xam ne dañuy sikki sakka rawatina sikki sàkk ci nit ñi buñ dee ba nekk poussière nu ñuy dekkee borom bi ne xam leen ne bu doonte ne li nekk ci kaw suuf ci ay garab te nga la waay yow la jeune del xool internet xoolal àllu amazonie bi xoolal àllu Canada xoolal di superficie yoo xam ne c'est des milliers des centaines de milliers de kilomètres carrés yoo xam ne garab yi dañ fa roofaloo suñu borom yàlla mu ne mboole mi garab bu nekkoon ci kaw suuf buñ ko sattoon def yépp ay xalima dem ci géej gi double ko sept fois ngir bind kaddu borom bi mënuñu ko du mën a jeexal kaddu borom bi lana ciy gën a yéem mooy ndox moomu nga jël ngir binde ko li ci yàlla dëxën ci ay mbindaafan mënul bind boppam waaye ndoxu géej mënut bind boppam waxumaa nag di bind leneen lu dul lu dul moom borom boobu nag subhanahu wa taala moo tax mu ne du jeexal kaddu yàlla yi kaddu yooyu nga xam ne lu mu bëgg danaan amal moo am te it jaam bi loolu lay gëm suñu borom yàlla day wax nam ko soobe di dogal nam ko soobe borom boobu mooy al aziz moo not lépp kum bëgg a toroxal kenn mënul tee mu toroxal ko kum bëgg a teral kenn mënul tee mu teral ko amul lenn loo xam ne tën na ko jàll wa ala doonte ne mooy alxakim bi nga xam ne kattanam googu du ko jëfandikoo lu dul fam ko war a jëfandikoo o safaano les grandes puissances yi nga xam ne jàpp nañ ne bu seen intérêt nekk Irak off bombardé na un million cinq cent mille de off du problème dañu am pétrole rek Libye nag na cinq cent mille de seen yéen ci dañu am dañu am pétrole rek Mali taal fu nañu taal ko ngiree seen kattan borom boobu mu ne déedéet muy al aziz ki not lépp lu ko neex def waaye muy alxakim lépp lu mu def da ko teg fu mu ko war a defee loolu yi mbokk kalimatullah yooyu nga xam ne géej mënu koo jeexal yonent bi alayhi salaam jàngaloon nañ ci ak ñaan boo xam ne rawatina suñ jamono yi feebar bii daana wax ne amul kenn ko dal ci benn place ni a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yu matale yi ci ayu lépp lu mu bind lu dul ne place boobee dara du ko fa lor e waaye booy dugg jàkk wax ko sooy dugg oto wax ko soo demee marché wax ko demal bureau wax ko place boo dal wax ko a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq soo la arab ba réeree neel maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yu mat yi ngir mucc ci ayu lépp lu mu bind maa ngi làqu ci gannaaw kaddu yàlla yu matale yi ngir mucc ci ayu lépp lu mu bind mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala nag mu ne ay yéen yéeféer yi weddi ci ne la nga xam ne mooy dee dekki am na day xam leen ne mboolem li yàlla bind ci kaw suuf yàlla xam balaa adduna tukki ñaata milliards la ñuy doon borom bi nag ne yéen ñëpp bind gi ma leen bind ak dekkal gi ma leen di dekkal dafa mel ne benn bakkan rek la noonu noonu la yombee ci man ci tey jii suñu borom won nañu la bëri dañuy gis masalan benn réseau la doon expression nga ko tuddem lu mu mën a doon mën na am 10 millions d'abonnés xëy suba rek lancer benn message promotion am na mu dem ci 10 millions de téléphones yépp loolu doomu aadama mi ngi koy def tey ku ko waxal suñu maam ndax dañ ko gëm mënul nekk duñ ko gëm waaye borom bi yàlla nag loolu la ñuy wax ni yéen ñëpp seen bind ak seen dekkal mi ngi mel ne benn ci man borom bi teg ci ni inna allaha samia mooy kiy dégg lépp lu xew ci kaw asamaan yi mooy kiy dégg lépp lu xew ci kaw suuf doomu aadama xamal ne loo wax yàlla ngi liy dégg koy waxal yàlla ngi leen di dégg waaye it mooy albasir mooy gis lépp loo xam ne mi ngi ci kaw asamaan yi moo gis lépp lu nekk ci kaw suuf inna allaha la yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama dara réeru ko ci la nga xam ne dafa nekk ci kaw asamaan yi ak suuf lii mbokk ku nekk ci ñun war na ci bàyyi xel mi ngi noonu Cheikh Ousmane ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن ما يدعون من دونه باطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا عشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور jazakumullahu xayra suñu borom subhanahu wa taala mu ne alam tara moo ndax yow gisoo anna allaha yuliju layla fi nnahaar ne yàlla mooy dogal guddi ca biir bëccëg wa yuliju nnahaara fi leyl mooy dogal bëccëg ci biir guddi wa saxara shamsa wal qamar moo tàggat jant bi tàggat weer wi kullun yajri ila ajalin musamma lépp day ma ngay dox jëm ci dig boo xam ne tudd nañ ko wa anna allaha bima taamaluuna xabiir borom bi yàlla nag li ngeen di jëf ku ci ñàkk kumpa la zalika bi anna allaha huwa alxaq li waral loolu mooy yàlla rek mooy dëgg wa anna ma yad'uuna min dunihi albaatil ci lépp lu ñuy jaamu ca du moom neen la wa anna allaha huwa alaliyu alkabir ca yàlla mooy aji kawe ji aji ku màgg ki alam tara anna alfulka tajri fi lbahr moo tax gisoo ni gaal ya day ma nga ne di daw ci biir géej ga bi ni'matillah ci xéewalug yàlla li yuriyakum min ayaati ngiree mu won leen lenn ci ay kawtéefam inna fi dhalika la ayat nekk na ci loolu day ay kawtéef li kulli sabarin shakur ñeel bépp mu ñaakoon santaakoon borom bi jalla wa ala wa ida ghashiyahum mawjun ka zulal heure bu leen yiiree benn vague muy duusub géej bu mel ne la nga xam ne ak ker la tiim leen daaw la daawu llaha muxlisina lahu diin daañ woo yàlla di ko selalal diineem ji falamma najaahum ila albar waaye bu leen musalee jëme leen ci jiiri ja fa minhum muqtasid dana ca am ci ñoom ñu digg doomu wa ma yajhadu bi ayatina waaye du nekk di weddi suñu aaya illa kullu xattaar lu dul bépp waraakoon kafuur weddikatu boromam mi ngi noonu mbokk suñu borom bi ñuy ubbi bind bi mu ne xanaa gisu leen yàlla tàggat li nekk ci kaw asamaan ak suuf te it mu ne xanaa yow gisoo ne yàlla mooy jël guddi dugal ci bëccëg jël bëccëg dugal ci guddi na am tey jii ñu ngi nekk nii di julli huit heures jamono yee ca gannaaw ñu ngi doon julli neuf heures fajar bii di jot ay moyen vingt presque am na ay temps ay six heures moyen vingt la daan jot loolu nag yow mi ne Sénégal da ko comprendre amaa ñi nekk ci yeneen dëkk yi da ngay gis ne léeg-léeg guddi gi dem nekk daanaka dix huit heures de temps bëccëg bi six heures de temps rek lay doon ñuy demee dem quelques mois après contraire ba am bëccëg bi nekk dix huit heures de temps li nga xam ne mooy guddi gi nekk six heures de temps amaa bu dee extrême pôle yi moom ñoom dañoo am six mois guddi six mois bëccëg loolu kattan la goo xam ne kenn dong moo koy def mu yàlla amul benn programme boo xam ne nii ah waa suuf am nañ ko ba mën a changer programme mu yàlla dara borom boobu nag mu ne maa leen tàggatal jant bi tàggatal leen weer wi sànq tënkoon na ne maa tàggat li nekk ci kaw asamaan yi tey mu tuddal la jant ak weer ndax loolu nga xam ne doomu aadama loo gàtt gàtt xel yaa ngi gis jant bi yaa ngi gis weer bi yaa ngi gis ne jant maa ngi mi ngi lay jóge penku gannaaw ba weer bi yaa ngi koy gis ila axiri borom bi nag mu ne ñoom ñëpp am na fu ñu yem yajri ila ajrin musamma te na am mi ngi noonu bokk jant baa ngi daw weer baa ngi daw suñu borom yàlla utal na ko bakkan comme ni mu ñu utale bakkan bis la na ñëw ci bis yi lu safaanoog di scientifique yi di wax naan l'extinction du soleil dans cinq milliards d'années wala dañuy kàcc yàlla moo utal jant bi heure ak biddiw yi isa shamsu kuwirat wa isa nujumun kadarat ila axiri ca mooy bis dana ñëw suñu borom sant ab malaaka mu ëf bu ëffee catastrophe adduna lépp lu fi nekk jaxasoo keroog la yàlla di wékki jantam wékki weeram lépp lem teg fa ko neex borom boobu subhanahu wa taala it ne xam leen ne lépp lu ngeen di jëf dara ump ci yàlla jalla wa ala te loolee bokk na jaam bi gën a texe ci jaam bi mooy jaam boo xam ne du fàtte loolu mooy xam ne lu may def ci sama alal ci sama njaboot ci samay wax ci lépp loo xam ne ni am na xarit mën naa bañ a yëg soxna mën naa bañ a yëg doom mën naa bañ a yëg waaye yàlla moom dara ëmp ko bi maa tax amalu na xabiir borom mi nag ne li waral lii mooy yàlla rek mooy dëgg mooy ki ñu yeeyoo jaamu ci dëgg ki ñu yeeyoo yaakaar ci dëgg ki ñu yeeyoo ragal ci dëgg keneen koo jaamu tegoo ko ci dëgg keneen koy yaakaar tegoo ko ci dëgg keneen koy ragal tegoo ko ci dëgg allah huwa alxaq moom rek mooy dëgg keneen ku ñuy woote du yàlla neen la yaa cheikh diw yaa fulaan diw yaa sëriñ diw yaa malaaka diw yaa nangam neen dong ngay woo yàlla dong mooy ka nga xam ne moom la jaamam di woo woote ba amal ko njëriñ beneen woote boo mën a woote lor la la jural baram boobu nag mu ne mooy ala ali foo ko takk paase na foofu kawe na foofu mooy alkabir mooy ki nga xam ne mooy ko màgg kii ki nga xam ne nii mooy ku ku ku rëy ki moo gën a màgg lu mu mën a doon looloo tax julli gi ñuy julli ay yooni yoon allahu akbar allahu akbar soo sujjootee it subhaana rabbiyal aala mooy ki kawe mooy ko màgg màggaayam boobu moo tax nee na mboolem asamaan yi ak suuf da koy ngëpp yowmal qiyaama borom boobu it subhaanahu wa taala dañuy wax ba tey xéewal yim ñu defal tàggat na jant tàggat na weer waaye mën a xoolal géej maa leen tàggatal géej mbokk ndox yàlla ko jox bindam ndox bu dëgëroon comme suuf ndax gaal dana ca daw wala fii dañ naan sa euh, gaal du daw xaw ma euh, du daw ci suuf waaye saxaar it du daw ci ci ci biir géej ca mooy suñu borom moo ko wutal benn pesanteur boo xam ne diisul waaye it woyeful comme ngelaw moo tax gaal gi di ci mën a jaar di traversé borom bi ne taral ful ko mawaaxiro di xotti ndox mi di dem continent ba continent tey jii yow Sénégal dañ naan le plus de quatre-vingt-dix pour cent li dugg ci biir réew mi ci gaal yooyu la jógee yow suñ tam boo dankee ceebu Chine ceebu Pakistan ci bateau yooyu la jógee mboolem li ñuy jëfandikoo plus de quatre-vingt-dix pour cent ci gaal yooyu la jógee suñu borom yàlla moo ñu ko tàggatal borom boobu nag ni lii day ci ay xéewalam la ngiree mu won leen ay kawtéefam ca it ku wax gaal rawatina jamono bi alxuraan di wàcc mooy moyen de transport bi gënoon a sori bu doomu aadama mën a utiliser te mooy dox ay milliers de kilomètres ci océan yi jóge fii dem ay Asie ay Amérique yépp da ngay gis ne dañ ko daan def ci gaal yi dañ daan gis façon kawtéef bu nekk ca heure boo doxee ci kaw suuf rek gis kawtéef bu mosuloo gis borom bi nag ne nekk na ci lii day ay kawtéef ñeel aji muñkat ya aji cantaakon ya te lii mooy ñaari màndarga jullit lii ñaari laafi la jullit di naawe jëm ca boroomam mooy muñ ak sant mboolem jaamu yàlla yi da ngay muñ ngir mën koo jooxe gaa yi cinq heures du matin xëcc sa mbaat yi nelaw neex na de waaye ngay gën a ah waxtu wi day waxtu wi gërmloo borom bi la nga jóg dugg ca ndox mu sedd ma def say rakka dox ci lëndëm gi jëm ca jàkka ja suñ caam liggéey ba wàcc frigo baa ngi fees de lekki lekk mi ngi xiif mi ngi mar waaye da koy muñ ngir yàlla tax natt yi dal ci sa kaw feebar yi liy jóge ci noonu lislaam yi lépp nga muñ ko waaye it wëlbati ko sant sa borom mooy mboolu mi xéewal nga yëg na ci yàlla rek la jóge mboolu mi xéewal nga delloo ko fi neex yàlla lii mooy màndarga jullit mooy muñaakoon santaakoon lii de moom la borom bi subhanahu wa taala ne kawteef ñeen na leen ci ni mu bind asamaan yi suuf waaye xiiwul gu màgg googu di gaal suñu borom nee na buñ demee ba biir géej yàlla indi benn tempête vague yi jóg ba tiim leen te loolu it da ngay gis ne ay vague day dem ba ay dix mètres ci kaw tiim leen comme ker nga xam ne léegi lan moo des vague bi dal seen kaw rek ñoom ñëpp ñu dee borom bi nee na ñu commencé di woo yàlla sellalal ko diineem te loolu dégg ngeen ko dégg bokk yi firi arabe li ñu daan bokkaale bokkaale dañ daan wax boo demee ci biir géej soo woowee keneen ku dul yàlla rek da ngay alko xoolal yi fi def yi boo nekkee biir géej doo woo keneen ku dul yàlla boo ko woo rek da ngay alko yéen ñëpp yàgg ngeen dégg ne ikrama doomi abi jahal loolu ko dugal ci lislaam ba yonente bi ñëw ubbi makka baayam moo nekkoon noon numéro un yonente yàlla bi moom mu nekkoon seconde baayam coono bu jullit ñi am ikrama moo bokk nañ ci ña ko jiite yonente bi ubbi makka mu daw dem yéeg géej bañ demee ba ci diggi géej yàlla indi benn tempête gaal gi di jógo ko daanu benn màggatum arab jóg taxaw wax leen yàlla kese allah allah bu ngeen woo keneen ku dul yàlla rek dañuy dee ikrama ne bisimilaay jàmm ñun muhammad lii rek la ñuy wax ca mooy nañu woo yàlla kese bu dee géej gi yaatu gi yàlla doo nga fii sowee kon jiiri yàlla rek a fii sowee yàlla maa ngi diggante ak yow ba mu musalee danaa dem ca sa yorente ba tuub dugg ci lislaam yàlla musal ko mu dem tuub dugg ci lislaam waaye mbokk ñooñu mooy ñu ànd ak seen xel amaa ñi ci tey da ngay gis koo xam ne wallahi fa muy dee sax ma ngay woo keneen ku dul yàlla borom boobu nag subhanahu wa taala ne su dee ne musal naa leen delloo leen ca jiiri ja ah ñu commencé nag commencé nag di bokkale ak seen borom doonte ne ne dana ca am ñu néewi néew ñu digg doomu ba du ñu bokkaale waaye da ngay gis lu ëpp ci ñoom dañuy commencé di bokkaale borom bi nag ne samay aaye kenn du ko weddi lu dul warkat ndax war munta passé ba muy metti nga ne yàlla kese xéewal ñëw nga sant keneen te loolu mbokk waa yéefir yi dañ ko def ci géej waaye corona bi ku ngeen mës a dégg mu ne xéewalu suñ diw la ku ngeen mës a dégg rek ba corona xëyee ba tey mu ne suñ diw ma ko fi indi muñ leen lii kat suñ diw ko indi muñ leen rek lépp yàlla dong am naa xéewal yépp nag moom am na keneen ku ko def borom bi mu ne ñoon nag ñooy xattaar ñooy waraa kon yi ñooy weddi ko ci la nga xam ne nii seen xéewale borom la mbokk julit xam ngeen ni bu dul woon ak nattu bi dañuy gële saar bi waaye comme temps bi daf ñoo tënk dañuy doy lool rek insha allah ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu yàlla barkeelal liñ fi jot a dégg yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yi koy sant ci ay xéewalam boole ñu ci jaamam yay muñ muñ gu rafet ay jaamu gañ ko war a jaamu yàlla may ñu aafiye fi dunya wal axira xam naa it comme nañ koy waxoon ci bii passé dañuy bàyyi bilal bu ñu noddalee rek dañuy julli duñu ngiree mën a permettre ñi xaw a sori mën a yegg seen i kër mi ngi noonu